jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy saraxe jigéen ju gëm ji nettali bi mi ngi cosaanoo ci Mark saar fukk ak ñaar aaya fanweer ak juróom ak fanweer ak juróom ñett ba ñeent fukk ak ñeent Luk saar ñaar fukk ak juróom ba saar ñaar fukk ak benn aaya ñeent luk saar fukk ak juróom ñett aaya juróom ñeent ba fukk ak ñeent benn bés yeesu ngi doon jàngale ci ëttu këru yàlla ga ne yàlla xam na li nekk ci xolu nit ki yàlla xam na ndax nit ki mu ngi dund dund gu jub te toroxlu amoon na kilifay diine yu bari yu rëyoon ndax seen màqaama te soppoon nañu ngi ngisalu ci kanamu nit ñi waaye donte ñoo doon toog ca toog ya gën a kawe ca màggalukaay ya bëgge woon nañu ak xaalisu jigéen ñi seen jëkkër faatu te doon nañu màggal yàlla ci kanamu nit ñi ngir ngistal yéesu mu ngi toogoon ak ay taalibeem fa jàkkaarloo woon ak saraxekaay ba yéesu du xool mbooloo ma mi doon ñëw ngir màggal yàlla te jébbale seeni sarax nit ñoom alal di joxe xaalis bu takku ñu bare dañu doon bëgg nit ñi gis leen waaye ab jigéen ju néew doole ju jëkkëram dee woon dugg ca màggalukaay ba dem ndànk ca defukaayu sarax ba def ca xaalis bu néew noonu mu wëlbatiku ngir dem ñaan Yeesu woo ay taalibeem ne leen maa ngi leen koy wax jigéen ju néew doole ji te jëkkëram dee def na ci boyatu xaalis bi lu ëpp li ñeneen ñi joxe ñoom ñépp joxe nañu lenn ci seen alal ju bari waaye jigéen ji joxe na ci néew dooleem lépp li mu am te muy li muy dunde beneen yoon Yeesu wax nañu ñi seen njubte te xeeboon ñeneen ñi léebu bii ñaari nit dañu dem këru yàlla ga ngir ñaan kenn ki di woon ab nitu diine kenn ki ab juutikat te ñu jàppe woon ko ni ab bàkkaarkat nitu diine ki taxaw ñaan ci ay mbiram ne yàlla maa ngi lay sant ci li ma melul ñeneen ñi muy sàcc defkatu lu bon yi njaalokat yi walla sax niki juutikat bii damay woor ñaari yoon ci ayu bés bi tey joxe asaka téeméer yu ma am yu nekk fukk yi waaye juutikat bi taxaw moom fu sore ñemewul woon siggi xool ci kaw mu tàmbali fëgg dënam di jooy naan yàlla yërëm ma man bàkkaarkat bi noonu Yeesu ne